Euh, ni ñu koy waxee rek suñu borom moo ko wax ku lu kullu nafsin saaixatul mawt bakkan bu mas dund di nga mas dee ni ko noonu nag ñu taxaw ak euh, monsieur le ministre Serigne Mbacke Ndiaye doon it koo xamante ne askan bi xam nañ ko waaye Sénégal lekk ñor ko saa su ne muy jug di bokk ak ñoom lépp loo xamante ne rek seen mbégte la wala seen bànneex tey nag ñu fekk ko ci bésu tiis bii nga xamante ne suñu yaay maman Kine Diouf Diaga moo fi jóge monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la jaal di la masaw bu baax ci tiis bi ñu bokk waaw maa ngi leen di fay Euh, di leen jàll yéen tamit parce que ni nga ko waxee ñëpp ñoo ko bokk mhm. euh, muy lu metti metti metti metti mhm. euh, coro bi ma koy tàggee daf ni ma ah papa nga baal ma de li ma lay wax metti na lool xam naa fi mu egg ci yow mais la ko bañ a wax mhm. parce que ñoom xam xamoon nañu relation yi nga xam moom laa am ak la famille de Thione Seck particulièrement ak soxnaam si nga moo fi bàyyi ko tey mhm. d'ailleurs coon daaw ma woy mukk sëriñ Mbàkke daf man woo rek xaritu jaaga mhm. su ma nee xaritu jaaga man ko bàyyi waali ñu ree mhm. euh, muy lu metti lu metti parce que coon bu mu fi jógee yàggul ñu di ko jooy noppeeguñu euh, doomam jiitu doomam jooju aussi mu nekkoon ko nga xam ni ñi ko xam yëpp xam nañ ne doom la woon ci man tey yàlla def li ko neex jaaga euh, dem fekki leen euh, muy lu tiis foo ko natt weesu na ko parce que euh, bu dul woon lu ñu di ay jullit gëm yàlla dañuy wax ne dañ leen singli hmm. mais yàlla boo ko neexoon ñun ñëpp ñu àndandoo mu yóbbu ñu ci benn jour hmm. mi ngi may fàttali rek bi fi suñu wayjur sëriñ Mansour si hmm. borom daara ji jóge fekk avant loolu soxnaan su tedd soxna maam xaar jóge fi Euh, ñu teg ci ab diir seen doom ju jigéen jóge fi. Mhm. yàlla mooy defe noonu. Mhm. c'est même difficile pour ma trouver les mots pour wax dëgg-dëgg li nga xam ne moom laay sentir mais dama wax sànq ci benn poste ni jaaga moom mission accomplie. Mhm. te loolu ku ko wax kenn du la weddi. ndax boroom këram moo ko gërëm ba woy ko. te du benn woy xëy na bi mujj nii daf ci gën a siiw. mais jëkkul ci boobu. ñaareel ba ñun suñu culture suñu cosaan ak suñu aada dañuy wax liggéeyu ndey añub doom mm-hmm. kon mën nañu jàpp ni li mu liggéey ci kër coon feeñ na ci doom yi nga xam lu ñoom la jur parce que macha allah yàlla mi leen di suturaal ñeewuñu kenn yàlla na sutura yàgg mm-hmm. Euh, comme ni nga ko waxee rek euh, sa xarit la woon moom ki nga xamante ni moo di Papa Thione tey yombul euh, cër li ko yàlla may sa boroom kër siiw sa doom siiw waaye yombul ñuy dégg Mama Diaga ci yenn yi ban façon nit la woon. non mooy li ma mooy li ma doon commencé wax léegi dina mission accomplie mhm. parce que sëy ba sa boroom kër sant la. Mhm. nga yar say doom ba ñëpp xam ni yaru nañu. Mhm. te kenn mësula fekk fenn foo nga xam ne dañu naan kii lu mu fi def. loolu euh, du sax nguur peut-être mhm. mais lu yàlla jagleel doomu aadama la mhm. ak jamono ji ni mu mel mhm. ak demale fekkal leen lu mu mel ni mu mel mais jàgg ko ko waxal dara rek ah sa waxu bopp la mais dooni fekk naa ko ci nangam dooni gis naa ko ci nangam demul dikkul et li may wax nii mën naa ko wax teg ci kaam parce que jëkkëram moo ko wax ay doomam seddal ko seen yaay leen rek mooy yitteem muy dem ci armeer yi ba toppatoo ñu feebar loolu rek moo nekkoon yitteem ci li ñu koy dégg. mais loolu yëpp boo ko boolee xëy na moo ko jox li nga xam ne tey euh, moom la am. parce que kenn ku nekk la ngay dund yaa ko xam mais sutura yàlla dafa yaatu. Mm. te bu fekkee ni yàlla jox na lu sutura jox la sakk nga ni ma ko waxee léegi rek nga uuf sa jëkkër ba jébbal ko borom bi. Mm-hmm. Euh, yar sa ay sa njaboot. ba ba ba kenn amul lu mu leen waxal euh, je pense que foofu la foofu la foofu la nit mu a yem te macha allah fi nit mu a yem egg na fa. Mhm. Mhm. li ci des rek mooy yàlla na ko yàlla xare àjjana. Euh, uuf njaboot gi mu fi bàyyi. Mhm. xëy na nit bu demee ñu jaaxle ci njaboot mais yàlla moo yor ñëpp. nga nekk fi yàlla moo leen yor nga bañ fi nekk yàlla moo leen yor. donc yàlla na ko yàlla xare àjjana. Euh, coon fa mu tëdd yàlla na ko yàlla xare àjjana moom it euh, njaboot gi fi des it yàlla euh, tegal teg ci boppam loxoom loolu yëpp rek day dellu si ci responsabilité boo nga xam ne nag doomam di wàlli sëkk gën na ko am parce que boo nekkee ak ndey ak baay ak say rak mhm. yàlla jël sa baay jël sa ndey tey mhm. sa responsabilité dafay gën a yokk donc yàlla na ko yàlla kattanal dooleel ko mhm. ba responsabilité boobu mu gën ko mën a assume Euh, li ci des rek mooy képp ku doon xaritu coon wala ngay mbokkam euh, rek yàlla na nga am conscience boobu ba gën a jege xale yi gën leen jàppale gën leen a wéttali parce qu'ils en ont besoin yan kàddu ngay dégg sénégalais ci saa su ne rek waxante lu ñaaw xaawente sutura beneen yoon ñu dellu si ci ci loolu pour le moment je pense que mun naa yem rek ci waaw jërëjëf ñu ngi lay masaw bu baax monsieur le ministre merci